fii dara méttiwu fi. ndànk dara méttiwu fi. gaa yi ngi bëree de mais bëree goo la gaa yi lay daw wala yaay daw gaa yi. waaw gaa yi am na ñu may daw am na ñoo ma leen daw. kan moo la daw. ah am na ñu may daw de mais. kan la daw. lamb koo na suwa. a sok kan moo la daw. non kenn dawu ma léegi man may daw gaa yi mais le problème nekk mooy Sa Thiès laa bëgg a bëreel man. Sa Thiès mun naa daan Moussa Ndoye barki démb lu rëy di la man ndam lu rëy jomb ma. ndam nag am naa ko fii Cobra bu muy tël laa ko jàpp daan ko fii jam ceeri ba muy tël kitti booy mënuñ ci moom dara laa ko jàpp daan ko fii mobile de ba muy laa ko daan jokel ba muy tël laa ko daan mopool ba muy laa ko daan Ibou Mal lu ma fi am ndam mënu ma ko compté man ay tëj jëmalu ma dama bëgg ñu bëre ma ak moom moom nee na Eumeu Sène la bëgg moom comme dépassé na la yéeg na cour des grands yéeg na cour des grands yàlla na suñu borom gën a yéegal yow nag na a waaw am na ñu ma mën a may chance instant du ma tudd seen tur ñoom xam nañ ko. loolu moom xamee ma la woon lii mboor mboor buy buy raay bu njëkk da nga daan wax diw laa soxla. non man su ma mënul bëre Sa Thiès garaawul quoi nan ma jox baaboo mu bëre ak moom garaawul. waaw mi ñëwaat ci làmb nee na ñëw na te bi mu fi yow victoire la fi jógee. waaw te bi mu daane Baami Ndione damaa ñëw daan Baami Ndione. waaw dañoo war a bëre. du dama koy laaj gir ngir en temps amateur yaakaar dama bëgg noonu bëgg mu Sadio laa bëgg a bëreel mais dama xam su ma mën Sadio damay damay bëri Baboy Baboy kenn gën ko wax palmarès dama ko bëgg a dugal ak sama palmarès incha allah rabbi. ñaanu ma de. non ma chance de dama bëgg ñu bëre Sadio mi ñaanu ma chance dama bëgg ñu bëre ay ay morom ñaan chance ah, mais Sadio du ma ko ñaan chance. mënoo ko ñaan chance sa morom la mais Baboy la. Ah, Baboy dama ko ñaan chance ndax suñu grand la dem naa combat ba dem Cambérène déet boobu ñëw maa bëre war na yàlla keneen bi bëre bo Bordeaux fi ah, sax laa ah. jógee ba Cambérène barke say naamet gaynde gu màgget gaynde gu màgget mais gaynde gu am sell moo mën a ay yàq ah. waaw gaynde gu amul sell day mu ko jëg mais du yooyu de yow loolu loo ko waaw mais gaynde gu gaynde gu ndaw laa man moom bu mag la <laughs> dañ ma ko